Thank you. aca jërë ngeen jëf mbokk yi suivre biir arène tv ak laal yoon deel yoon borom petit ko ragalul loolu ba tey rek ñu ngi fii si tefes euh, nee naa si digg mbuur lañ nekk tey ji ah kanda ah euh, ko ñu ñoom kan ñu ni Robert Ndiaye numéro 2 ah ñoom Siaka ñoom in kor mari ah euh, lu mel ni ñoom pool Mante ah ndaanaa ni bari nañ si équipe bi ñoom Bas Ngel Jooni numéro 2 ah gars yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax baax a baax a baax di leen jox seen waay tey nag ñu doxantu seet si ndaanaan bi moom Robert Ndiaye numéro 2 bu ko defee ñu seq benn wextaan bu ndaw si saison bi ak li fi jot a jaar si drapeau chef de l'état bi ak tamit tukki bi dem ñëwaat di jommal gars yi loolu yëpp daal bëgg nañ kaa tënk si biir émission bi Robert ñu ngi lay ziar. Eh, doo la bu wér laa la yoon di la bëggee di la ziar di la safoo lii rek yombul quoi waa aussi tamit lu ëpp solo si nit yëg-yëg la te man naa ne am nga yëg-yëg si ñun ne parce que saison nu muy amaa ak ba nu muy jeexee xam nga dañ siy nekk chaque jour dañ siy nekk kon yàlla na yàlla dolli si dore rek comme muy rafet comme nii mu rafetee waaw après boo waxee ñu avancé si kanam quoi. waa tey Robert Ndiaye numéro 2 lan moo ko boole ak làmb foofu la ñuy dooree ak moom rek ci lu gàtt. Hmm. laala leen man damaa judd fekk ay mbër suñu kër xam nga virus lamb dugg ma trop tayo ay pekati meew moo daan am fii nii ay ay lamb sugar ak yoy non muy sama mak keba ak ablay ma daan toog seen i cumbukaay bay nelaw xam nga lamb jaral ma lu nekk chaque jour ma nek fi ni sak jour ma nek fi si ñom comme si cour gi ni la comme boy ni ñi jang xam nga lamb nek sama deret ma koy dund ba jimu yalla tay ah. Ah. si waaw kon da nga juddu fek ngembali si biir kër gi suma ma la déggee. waaw damaa juddu fek ngembali si biir kër gi mom lay firnel sak jour ni mais tay liñ ci def est ce que ñoñu jotoon nañ ko ci am. non ñoom desuñu ko say def quoi ndax xaaruñu temps boobu noonu mais man moom damaa xaar temps boobu quoi ba nekk si comme ba tey jii. tey jii Robert Ndiaye kañ la sentir ni moom mbër la ah ba xam lan si lan la jaar mooy ay potu meew yi wala paquetu meew yi wala saako ceeb yi wala écran plat yi wala wala paquetu suukar yi lan la si njëkk am jëlaam. man dama doon bëre ay paquetu meew di jël ay paquetu meew suukar paquetu meew suukar ba comme ay saako ceeb am benn jour golf ñu teg fa écran plat. mo bor keri kaw fele ma jël ko lolou momu do fe nak ba tay yalla tay ji ma doon mbër mhm. Robert Ndiaye tay ji a part tay écran plat bo mo xam mu ngi ko jël ci bir golf fi mu dëkk a part lolou ndax fan la ñëk a dem bëre ji man ma njëkkee bëre génn bëre ji ki la fii tropical la mu jël na ñëk bëre ji mhm. ñu daan ma fa demi final bo ñu ngi fa tegoon nag ñu daan ma fa demi final lolou ma doon bëti fe nak may bëre ji nak di bëri ji di jëlaat lamb sañ bi loolu ma def mbër quoi. Hmm. bi ngay génn fan nga njëkk a jël drapeau à part Mbour. man sama fii laa njëkk a jëlee drapeau. Hmm, boobu ñu ngi ko tegoon ñett nag. ma ma jël ma jël poids lourd boobu poids lourd la woon sax laa doon bëri. poids lourd nga hmm. nga jël. ñett nag lañ fa tegoon. boobu ñu ngi jugee lamb Joal fii ma daan fa pour kii troisième tour. ñu continuer soman ma jël ko. nga jël ko am ñaari nag. kon mën nañ ne premier drapeau nagam du bene nag ñaari nag. ñaari la waaw. ñaari nag moom laa njëkk a jël si laa. si benn takkusaan waaw. tey jii boo ñu mënoon wax jour boobu noonu somoon kan nga fa njëkk daan ak sa final yow ak kan la woon lan nga ñuy wax ban moo la fa gën a marqué boo xam doo ko fàtte jour boobu noonu. boobu combat booy bi tur bi sax laay bi di rek tur bi nag jàpp ma tur bi nag bu baax. moom booy bi di rëcceeku rek. kan la. ab loolu la ameen tukki na nag tamu xaw a njool nii tuuti. Hmm. moom laa fa tasaloon final. Hmm. moom laa daan final. lamb ji nii waaw fu mu dëkk lamb jooju si yaaga moo fa may quart de finale sax foofu la dëkk ab booyam daa la nii mais ko daa njool nii tuuti tukki na hmm. Hmm. nekkatu fi nekkatu fi hmm. loolu am na solo à part Somone bi nga jugee Somone nga ñëw ak say ñaari nag lamb ak ni mu méttee nga ñëw jël écran plat biir golf ay potu meew yëpp ba yàlla def nga dem tropical daanu demi-finale jugee Joal daanu troisième tour ñëw fi nga xam mooy Somone tey loolu noonu nan nga ko bon xam nga mbërëg nag rek kii doog a jël nañ nag ba ma ñëwee egsi nañ mbuur yenn heure daanaka ay quatre heures ba ma egsee ñëw may ndox nagi ndox toog ñoom si ëtt bi fëgg sama yaay nekk nag yaa ngi nii sama yaay kontaan moom tamit ma kontaan toog ak nag yi xëy fajar dem sangi nag yi toog si buntu kër gi juróom ndekkiwu ma sax ndox waaw kontaan nag xoolal kontaan bay bëgg a dee mooy sama première nag sang leen toog ak ñoom si buntu kër ñu ne ma ndekki man leen ax baax añ ma añ xoolal commencé desitu añ ak lu am ak ñax ak lépp teg ma am rek ñoo indil nag ba nii. Mhm. noonu la demee nag. ana nag tey. ay nag yooyu def naa xaalis. def nga xaalis def naa eh, eh, eh, kii buuru gétt wala dara sax. ba naa nag yooyu def naa xaalis. bëgg a diire def xaalis. Hmm. Ah, loolu yar nga daal ba mu baax nga daal def. def xaalis waaw. à foofu bi nga jugee fi nga xam ne mooy Somone. Hmm. foo demaat. bu ñu jëlee ay semaine jëlaat naa fi ay lamb jaar nga fay a. waaw hmm. jaar naa la. Hmm? ah avant may ba ñu ma ba ma jugee moom làmb ma jël yëpp fekkee nga ko. fekkee naa loolu avant ngay dem Espagne la xam. boobu avant may dem Espagne moo hmm. ma année bi de loolu problème bi de. ay année bi nga dugg ma ne ma la wax année bi nag ah. loolooy problème bi loolooy bi année bi laa wax. <laughs> mais Robert Ndiaye ak coowam ak riiram ci mbuur mu nekk koo xam ne tey jii buñ ko tëggalee combat bi gars yi ni Baye Fall bi am na combat loolu lu extraordinaire lay am si biir mbuur ba combat bi passé mu am peleña diggante moom Papa Ndiaye encore mu nekkoon combat jinde gars yëpp doon ko xaar coow li bari lool mu am lu ci am ci diggante bi combat bi yàqu hmm. ñu ni ñu ni ñu ni si yow la wala si Papa Ndiaye la yàqoo loolu moom extra il faut que si comme maanaam man comme ñu wax la sama combat nga ni waaw yomb na hmm. mais après boo xoolaatee ba sa biir pour nga assister comme li nga wax dëggal sa bopp loolu day jafe seetlu li ma la wax nii amee naa combat nu nekk nag Papa Ndiaye Hong dañoo am combat man ak moom ku nekk di waajal boppam ku nekk di waajal boppam ba ñu làmb ji lay am ñu daa am mooy accident métti boobu noonu biis ñu ne làmb ji amatul léegi ba ñu jàppaat ji ba mu ba mu war a des ba des ba def semaine léegi ba desee semaine ñu ooma nee Papa Ndiaye Hong Kong daa am décidir si tànk bi man leen ba décidir ñu ne ma tànk bi moo débuwaatee wu xaw ma. Mhm. man leen loolu lu mu nekk ak ku waaj a xoolal waaj ñaari yoon. Mhm. war a bëri ñu ne ma moom nee na mënta bëri xam ma joxe na lan la ñu wax ne mënta bëri. Mhm. noonu lañ ko jàpp ba ne mënta bëri ba combat bi mii ngay wax ak yow nii noonu la yàqoo. mais dama bëgg comme gars yi man ñu dimbali ma si sax man bu nekkee am na koo xamante nii sax kum gi ñep di coow wala koo xamanteni ni sax kenn coow ñu jël sama avance lek man loolu la bëgg lek après ñu xol ndax dina réssé ci lamb jëm déet mais avance jox ma robel jox ma robel gi dafa dafa bari trop te buñ la joxé robel do assisté da ngay delloo avance wala nga tok ba ci biir wala sama mbokk nee na lii te man dama bëgg ñu jël sama avance ba Dakaru Njaay tamit ndax Dakar ben combat la fa am man ak mu Dakar bu nekk ikiri ama sen ben combat combat bu gaaw loolu ba ni may wax ak yow boy Dakar yi kon Rebal Njaay du ko jël xoolal sama sama avance ins bi lamu na ci dëkk bi Dakar lu ko dalee Dakar ba par marin fépp amul ko nango jël sama avance dama bëgg ñu téye avance après ñu xol lu ci biir quoi yow fekk nga lepp la laal yon avance Robel Ndiaye yomb la jël mbuur wër fépp gaay ñu jappalé ñu way jël avance bi tamit ñu nekk ci ne parce que ñun bëré lañ yaakar bëré moy suñu mecc mëna ñoo tok tamit avance bi di fi lambar lambaree kenn nango ko jël ta aussi tamit bëri ko nango la jël amul ko ci def lo xamanteni defumako lu may def mooy gën a pire sax li ngay def foofu mais tamit li nga siy daw lan la moom xaw a wàññi loolu bu nekkee dóor lañ siy daw ma wàññi dóor yi bu nekkee gaaw lañ siy daw ma wàññi gaaw bu nekkee tactiquement lañ siy daw ma wàññi ka après ma def nànk-nànk man tamit xam saa bopp ñu mën maa jël loolu tamit da see am solo laa li yoon <laughs> damay waxaale de ah. xoolal saison lëmb yow boo si amee benn combat bala ngaa amaat combat te ku lay jël risque dëgg lay jël du nelaw lu nekk dina ko daj man ñu may jël moom lay wax nii man maa war a wàññi lu may def tamit def nànk nank laa li yoon gisa dëgg neexul laa li yoon man damaa war a def nank-nank ñu bëree ma yàggal temps bi tuuti saa nga dóor ma sax ma nangu ko isaan yi dégg su ma la jàppee daal na nank def nank-nank xam nga loolooy la problème nag mais comme duñ ci waxtaanee ma nak sama adversaire sa ñaa waat nekk man bu ñuy bëree mën naa laa bàyyi nga dóor ma def nank-nank su ma defee nank bu ma la jàppee dinaa yàggal combat bi tuuti du ma la jàpp fii bàyyi fii ma loolu mën naa ko hmm. dañ ni ndox du bàyyi yoonam lañ wax te te rapidité bi yaa moom daa mel ni picc ak la deret la ah rapidité bi ndax yaakaar naa say combat sax bari lu muy am dóor de. Mm. mais xam nga li problème bi man su ma bëggee bëri dinaa bàyyi rapidité bi dinaa bàyyi ay dóoraate dinaa bàyyi ay jàpp fii bàyyi fii bàyyi fii il faut que lu tax il ma bàyyi ko su ma bëggee combat dinaa ko bàyyi. ndax insi bi ko si jël sama avance ay Robert Ndiaye dafa gaaw xam naa li ma la wax te booy bob bu jàppee fii mën na laa daan si ay yooyu laay bàyyi man. du la jàppee yàggal jël bi bañ génne par point ñaar mu des benn kese nga xam ne benn bi la ñuy xëccoo. après loolu duñ ko filmé de. ah di ngeen ko filmé de laa ah, li yoon. ñun moom ay combat bi yàgg bu bu ma bu gaawaatee sama avance dafay yàggat. koo ni nii mu naan lay waaye booy boobu xam nga rek day ànd ak ay nekk tamit ay mbokkam la am tamit te tamit ñàkk ma fayda di jël avance di la bàyyi noonu nga may dóore ki daan mais nànk-nànk daal man naa la kaa signé bu ñu signé man la man dinaa moom xam nga ndax man ngeen kaa waaw waa tamit tooñ nañ ma. nuñ la def ok moo leen maa booleeg seen Karim moom ñu wàcc ñu war a wàcc yëpp ñëw ba Joal ngeen yàq làmb ji loolu tamit neexuma moo comme nu ma la expliqué nii lañ si doon xalaat. mais sa combat ak double moteur tamit lan moo ko yàq. sama combat ak double moteur si ñoom la yàqoo. Hmm. barki Seydina Mohamed dañuy bàyyi ba combat bi ñëw ñu naan lay niiw ak niiw ak neex te Double Moteur tamit kii tamit yàq na yokk na kaa yàq Papa Ndiaye onk ak moomu tamit yokk na kaa yàq sama combat ak Double Moteur ne parce que mënta dëggal boppam topp média yi di wax topp groupe yi di wax jox leen ma Rebelle Ndiaye jox ba ma ko waxee semaine boobu xam nga damaa jël ñaari ramb xam nga farfar yow fekke nga lépp jël ñaari ramb farfar mais bu ma yëgoon su ma yëgoon du ma bëri ji la cause xam nga lu ko indi bëri ji bu ma bëri ji moo indi problème yooyu ne bëri ji farfar jël ñaari ramb rek ma commencé dégg ay waxi sooxe Papa Ndiaye Hong daa doon dem entraînement gaañu bëre jeeju ma ma ne gars yi teel leen licence xam naa ne su ma continuer di bëre ji dina gën a garaaw noon dina ñëw ba Sidi Diakhaté delloo ko xaalisam est-ce que dégg ma ne gars yi bëre teel. kon yow da ngaa jàpp ne Papa dafa daw. dërëm dalu ka mu ngi may dégg xam nga lii la mu ngi may dégg dërëm dalu ka mais luy problème bi comme que bu ñu demee bay laaj robel day toog si suuf di bàyyiwaat man loolu la bëgg té man dama bëgg combat yo xamni tension la mais tos tension yépp da ngay laaj combat tension ñu naan lay nii ak na Papa ndjay tension da cee amone gaay yépp dañ doon wax naan ñaari jinné ko wara bëgg xam nga lay problème bi ñoo ñu daan ay ñaari jinné kay bëre yépp dañoo déssé xam mais yeen ñi yor city xam ngeen numu démé Papa ndjay Hong Kong bu ñu taseewoon laa la wax Papa ndjay yow gaaw xam nga la lu yoon nak manuma jaaxal ci bib lamb comme nit gaaw ni ba jaaxal ma ci lamb ah déedéet loolu yow gisoo leen ka sax yow dégg na ma yow lamb yi ma jël amna sama city yo xamni ne ba tey amoo loolu moom dëgg la moom et eh, defal spécial danga naan làmb am. Hmm. xam nga tey làmb day jeex. ñun la mbër mi moo jël làmb ji. wala mbër mi moo daanu finaal hmm. nga def si moom spécial mais kenn mënta am si yow spécial ndax léeg-léeg sa combat bari kenn mënu ko am. xam nga la problème man man man du ma du ma sonal supporter gis naa yeen seen bop sax duma len yeen sax dangeen dem man man ma len sonal no xam ma len sonal moy lan dangeen di beug japp sama combat do len ko japp yeen damay duggal lamb ba jël lamb do sama benn combat ngeen am ta final bi te nit ñi ñoy ñoy genn ci geew bi te nit ñi bu ñu mayeen amul bo len ci am ñaata ñaata jooni combat la am yow bo ci amé bu ma laaje sama combat da nga may waaye isa amuma ci won benn yeneen ni anañu dama ka gis dang ka meuna gis lolay la problème nak mo indi cause combat dóor pour ma am combat d'or yombul mais man lumai lu may def il faut que ma bay lu def yeexantalu ñuy d'or waaw léegi dañ fofu lolu loolu sa fo combat d'or yé combat papa yé ak yoy nonu nañ ko teunk fofu ñi ñew ci lit simple bi mais Robert dañu gis nga def fo efalam jek jek genn dekk bi def retour bi nga def retour suma ma jumul ngeeñeen nga ñëk a be jënd wa la ñëk be jënd mo fa be jënd ma gënné final n'est-ce pas waaw laa dañ final mooy lam mooy lam ngeeñeen ngeñal la déedéet ngeñal ngeñal final ba ba jotuñu ko bëre de moy lamb yi kii ni bi tojoon boobu waaw boobu ah, bëre final de dama jun déedéet fi fii fii la fii la ñaliñ laa njëkk génn ñaliñ nga njëkk génn waaw ma final ma dikkee moo ma final boobu waaw xam nga boobu rek ñàkk repère bi sax moo waral loolu di doog ñëwaat repère 64 nga ñëw ba final nga ne da ngaa ñàkk repère ba tey repère bi dama koo yow laal xam ni man ma am repère final yooyu duma ko bàyyi mu dem loolu mën ta nekk ñàkk repère bi ak non taxaw na moom yàgg naa kaa daan tax kii loolu lay révision la rek loolu révision la is ay dégg korok. révision waaw révision waaw révision. xool korok nu mu demee tax mu demee noonu mu demee may bëre di bëre di bëre di bëre ba final. is ay dégg repère bu normal ñëwul moo waral sax mu demee noonu mu demee mais après bañ doxalaatee xam nañ repère repère bi bu ñëwee comme moom loolu moom amul sax ay xaaral ma dem te ñëw simili saala. loolu moom amul ñoom ñu ngi may dégg ñoom ñëpp ak may dégg. simili saala lay demee. simili saala lay waaw lay demee. mi nga ñëw foofu noonu nga daal di fa keroog bi nga ñëwee ngeen gaa yu bari da nga leen a jommal man damaa dugg si laam damaa tardé. ndax hmm. daa tombé jour programme ak laamu Sénégal ñuy ñaan yàlla mu génne fi mu nekk moom Alfali. waaw hmm. léegi bi ma dugg see gaa yi naan booyu mbuur bi di ma jàpp am ñoo xam dañuy jàpp sama loxo ni ma kaay woon ñu kaay nga xool booyu bi daan ah, ndaamal daaru Babou Sarr man leen ban booyu mbuur la ñu ne ma booy bi man leen booy bi daa demoon Espagne bay doog a moo daan daama daal man leen bàyyi leen ba si kanam après ngeen comprendre. boobu ñoom xam nga ñoom ndeysaan dañoo réere mbir mm. mais man ñu may daan Babou saara si gën a ndaw ndax Babou Sarr bi man maa ko ëpp bëre foofu ku dul moom maa ko ëpp bëre comme daan ka xam nga ñoom ñu koy seetaan du rëy si ñoom mais man mi ko daan du rëy si man ndax man xam naa ban qualité laa bañ tasee nag xam nga ku nekk def na ko combat derby mais man du derby si man man kuma gis xam lu may xam lu may normal xam waji di nga xam ki pour mu daan babu sar mom comme bonjour bonsoir mhm, non la demee quoi bama ko daanee tamit ma jaay babu sar daan babu sar daan mais man après dafa mako sax sama xel mais tamit est ce que du babu sar mo la may buzz tamit si kanamu gars non man lu tax Babou Sarr manuma ko ok si ñu xamul. waaw si ñu xamul. loolu mo len loolu mo may buzz si ñom mais suñu ma xam loolu du buzz quoi mhm. ndax babu sar day fekkante ay lamb làmb mhm. boobu rek ngeen daje wala daje ngeen daje. boobu lañ tase mais dañoo demaat dañoo demaat fële demaat nañ fa Sokone mhm. mais jour boobu kii moo ko fa daan Petit Sélé jour boobu man dañ maa daan demi final moom dañ Petit Sélé moo ko fa génne premier tour. mul jàmme la woon sama kanam waaw mul jàmme yaa ngi foofu n'est-ce pas. waaw hmm, jour boobu dañ maa daan kii demi final n'est-ce pas. kii moom ma daan demi final sax booy bi noonu la tur bi sax dama koy fàtte moo moo ma génne woon demi final mhm. noonu la demee. dëgg it loolu am na solo mais nga jógee fa ñëw rek bi nga jógee bitim rek ñëw rek mel ni dañ laa xabtalaat si làmb ji Robel toppoon na lutte avec frappe bi ba bàyyi sax di génn tout le temps si lutte simple bi hmm. mais mu jógee bitim réew dafa mel ni gars yi dañ kaa xabtal si lutte simple bi mu ñëwaat di wanewaat boppam te làmb yi mu sorti yëpp boo xoolee far fos bu finaaluwul dina bokk si quatre personnes yi nga xam ne ñooy nekk si kaw daal hmm. yoon ma damay soxor hmm. beneen nit laay doon bu ma duggee boo ma boo bi ñuy ànd nii ma xam bu ñu jógee si làmb normal si ngay xam ne da nga daan kii nu mu mel nii da laa jaaxal fekk ni comme direct làmb mooy daw si man man bu ma duggee si làmb rek damay sensé yow war ngaa xam loolu yéen ñuy topp làmb man noonu laa mel naturel si booy dugg rek sensé yor beneen métit hmm, ndax làmb moo xas ba bokk si man quoi ndax daa daa tax ma bàyyiwaat lu bari retourné na parce que man lamb dama see gis sama njëriñ Lolo waral ya nga dem ba bitim réew wàññeeku ñëwaat xam nga ya dem ba bitim réew tamit wàññeeku ya, di def yëfi ñàkk fayda man duma ko def te def làmb sama métier loolu xalaatuma ko sax sama bakken bi lay teg waaw lu ma may ma jël te làmb moom du ma si nekk sax naan ay du si ragal ak yii loolu man romb naa ko làmb moom fu mu nekk man pab bu nekkee fit ak jom moo koy jëlee man jàpp naa ne dama siy téye ba mu dëgër hmm, ndax ëpp nit ëpp ma koo fii waaw ñëw nañ Joal tamit ñu teg fa làmb ju rëy nga ñëw finaalu ko daan gaay yëpp jël làmb ji keroog waa Mbour tamit am na ñoo xam ne ba tey dañoo jommi de xaw ma ne lu leen jommal. mais mënee ñëwaat. Uh-huh. làmb Joal bi dama siy ñëwaat. parce que dañ faa dem quoi. premier tour ñu bëre ñu bëre ba sës. boobu samay nawle rek fa nekk ak ay Mbour. ñu bëre ba sës bu ñu xëyaatee si lañ ñëwaat. mais man daa amoon daa tamit lu ma siy posé quoi damaa damaa métti. ñu ne tànk yi dañ see teg kat nag kuñ daan am benn nag ku daan am ñetti nag mais man ba ma bëree ba jël ñaari nag lañ ma jox quoi après bañ amee discrétion yi bari dañu ne benn nag bi moo dee. sama sikam bay yaa ngi ñoo àndoon barki Seydina Mohamed dañu ñu benn nag bi moo dee. te loolu remplacé wuñ ko wala. remplacé wuñ ko xaalis ñaari nag yooyu lañ ñibbisee te xamal loolu tamit teguñu ko fenn quoi loo xamante ne nii dañ kaa joxe. at ko si pour man beneen nag bu deewee sax war nañ ñoo rempali xaalis jooñ suñuy ñaari nag ak lu mu mën a nekk mais tamit xoolal nga bëre làmb ba xëy ñëw bëre wat ko te yow xam nga ne làmb jooju ay champion rek a fa nekkoon barki Seydina Mohamed xam nga xous ba jël lamb jojju kon war nañu def lo xamanteni atou bu rafet la quoi na bu ñëwee bari ñep sa wara a waat bëri te lool da bari lu muy am ci lamb xool lamb léegi da ngay jël ab lamb léegi ni ci guddi gi sa nak bi nga jël de lool bari na si ay lamb barki Serigne Touba te lool tamit gaay ma ci conseillé wat gaay ñang kay baye xel quoi ndax bari dafa métti na parce que fii ku nekk say wajur yo lañ yaakar kon li nga nekk war nga see la loo xamante ni dañ leen tekkal quoi mu jariñ leen jariñ man tamit lool makoy lancer wat gaay quoi ñukoy baye xel tamit non da dewe kon ne la wax ci ak ngeureum ñel na la lenn lo xamni ni luñ la warona laaj te laaju ñu lako ak ak lamb ak wayam lo ci teunk ñu daal hmm. tàggatoo di sant nak ñu may jàppale bu baax nak fi mom wa deug fa neex yalla du ñak ñu lay pousse di sant ñom Mor Dega Mor Gomis nit ku baax la tamit bari soir borom baax la hmm. ak que Seydina Mohamed bari soir waaw xama rek nit ku mom wa deug fa neex yalla koo neewul du ma xamuma nu ma koy def nu mu la defa dax di sant ñoom Baye Seck ñoom Père Maxane Gomis isaan yi dégg di sant sama benn gaayan Bilal nit ku baax la tamit kooku tamit ku may jàppale barki Seydina Muhammad di sama sama papa yi ñoom Père Khalifa Ndiaye ak ak ñoom Iba Ndiaye ne parce que di sant Rahman mi ak sama waa groupe yi ñëpp ne parce que jàppalante adduna bi moom jàppalante rek am te aussi tamit day jàppalante ñun ñëpp te ñun ñëpp ay doomu aadama lañ àdduna moom loolu mën na see ñàkk di sant sama ñaari waajur na en chaque fois ñu ngi jàppale si luñ nekk di la santaale nag ndax yaa ngi koy yaa yi fu ñu nekk pour nga xam ne fu ñu nekk laal na yoon la ñuy xam nga pour ñu xam fu ñu nekk ñëpp ak sama waaj yi mun dama ko gëj a dégg sax ma waxaale ka Lamine. Lamine ak di sa taale sa waa TV nit ku baax la tamit mm. ak zulum zalam waaw ok waaw ñoom silo ah, moom moom TV TV mais yow daa mel yaay mbëru TV yow xoolal TV TV boo TV yaay seen waay te ñoom nag boo xoolee bëgguñu toogaay bu yàgg de man looloo tax ñu maa jàpp comme du leen may toogaay bu yàgg bu nekkee tànk yi la ñuy xaar moom du yàgg. na léegi moom mot ma def ko benn. kii waaw décharge leen. ñu leen mën ngeen a dem. Mm. man moom foofu laay doxee gaa yi moom. Mm. waaw yaa ma gën a xam. jërëjëf waaw. sant naa la gërëm naa la. à bientôt. à bientôt. à bientôt Rebelle Ndiaye tout droit. <laughs>